inna ilayhi raji'un mbokki internet yi ñu dëkk ak yéen ci xabaar bi fi dab xabaaru tiis ak naqar bu bette lool nag wàcc liggéey liggéeyu Thione Ballago sekk nekk ci bàyyi ci Wally Ballago Seck moo fi bàyyi ko léegi ci suba ay 5 heures matin matin euh, mu wàcc liggéey fii ci Dakar ginnaaw feebar bu gàtt bu ko tëraloon euh, mu doon xabaar boo xam ne si xabaar bu tiis la bu fi dikkal léegi léegi léegi léegi xam naa fi mu toll nii xol yëpp fees na fi mu toll nii euh, ñëpp am nañ naqar waaye nag bette na lool lool waaye suñu boroom moom lu gën rek lay def ci ci ci jaamam ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom wayfal suuf ci kawam ñu ngi koy ñaanal yàlla dolli yërmande ci kawam ñu ngi koy ñaanal di ko ñaanal njaboot gi mu fi bàyyi waaye di ko jaale ki nga xam ne si mooy euh, di doomam Wally Ballago Seck waaye di ko jaale euh, président de la république di euh, euh, Macky Sall di ko jaale ñi nga xam ne ñoom la bokkaloon nekk ci mbir mi di ci jiital ki nga xam ne mooy Youssou Ndour ay Ismaïla Lo Omar Pène ñoom ñëpp ñu ngi leen koy jaale mu nekkoon nit ku baax waaye nit koo xam ne si nit ku yaatu nit ku bari jàmm kaf ree wàcce boppam xàmmewul gone ak mag bala go sek momu dal mo fi bayiko ko nit ko xamni nit ku risit dem na bo deglo ay wayam way na lu ne ci aduna bi ñi ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax daanaka ta munta rek pour ñu annoncer ko ay fi mu ni xol yépp fess na ndax doon na xabar bu tiis lool te bett nak ñu yeewwaale ko tay ji ci dimanche euh ñi ngi koy ñaanal yalla suñu borom xare ko aljana lépp lo xam ci dal daal na fi ci ay xabar Eh, dina leen ko digtalaat jërë ngeen jëf mbokki internet yi